ak ñàkkum woorum Cheikh Fall. ñàkkum jullim waa kër Cheikh ak ñàkkum jul kër Cheikh Ibra. si c'était une guerre que l'on doit se déclarer. dafa war a nekk entre jullit ak farmaçon. entre jullit ak lobby yii xew. muy homosexualité beeg. lobby yii nga xam te ne ñoo ngi permettre ñaari góor di sëy. yonent bi alayhi salaam laa lay tàmbali. bi mu bëggee foqati jullit yi ñu def yéeféer yi li yàlla bëgg par force. Mhm. yàlla dafa ne ko kul yaa ayyuhal kaafiruuna waxal ñoom weddikat yi. Mhm. qul yow Muhammad waxal. Mhm. yaa ayyuhal kaafiruuna ñoom ñii nga xamante ni ñoo ngi weddi. laa a'budu du nu jaamu maa ta'buduuna la ngay jaamu. te wala antum déet yow aabiduuna ngay jaamu maa a'budu ñoom la ñuy jaamu. wala ana it yow aabiduuna doo jaamu maa a'budu ñoom la ñuy jaamu kon lakum diinukumul yad diin. ku ne na nga yem sa ba noppi gestuwaat alxuraan waxaat ak yonent bi nekk ni ko laa ikraha fi diin mhm. amul ku ñu war a poñe loo xam te ne da nga ko war a def ci diine par force fatabayyanu xam nga ndax lan mhm. ñun ñëpp bokk dégg wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni mhm. wallaay dëgg la ñun ñëpp a bokk dégg dégg wa maa umiru illa li yaabudullaha waaye ku jaamu sa bopp nga jaamul te jaam ëpp na ci doon juge moroomam nanu bàyyi nit ñi as sabooru te gannaaw ba am na patience su patiente ñëpp ndax inna allaha maa sabirin wallahi mi ngi muñal ñëpp mhm. kon guerre bi dafa war a doon entre ñun jullit mhm. ak ñoom formation yi nga xamante ni bu seen pexe jubee mhm. l'islam jëm ci suuf ma jox la ci ñetti firnde ndax Cheikh Ibra fa mu samp ñàkk julleem ak ñàkk wooram digganteem ak boromam la waaw man keroog bi ma déggee sëñ Muntaxa Albasiru wax ni Cheikh Ibra ak njabootam la leen yàlla jagleel nañ ci maandu. Mhm. te mooy Sëñ Tuubaa te ma gëm ni mooy Sëñ Tuubaa. wallaay dëgg la. ku may digal dama lay digal ni la maandu ci. Mhm. Mhm. ndax nag njabootu Cheikh Rafal gi ngay gis nag ku ci nekk dégg nga baqara ba mina jinnati wan naasi. ku ci gën a tuuti dafa yëy kaamini. gaa yi nag dañuy jàng ñetti laaya. waaw jàng naxu aarut bayaan toog di dingat Cheikh Rafal. Cheikh Ibrahima mag muy fanaani diiwaan doo ko doo ko dingat waaye gone guy reeree soos. am jongo moo ju xees ci sa ginnaaw bu la neexee dingatal Cheikh Rafal. waaye kuy fanaani diiwaan doo dingat Cheikh déedéet doo ko dingat duggat xalwe yi xam na nu maam <laughs> wallaay dëgg la tubaab yi saay-saay yi ba am tuuti basira sax xam na nu maam mm-hmm. léegi donc man damaa jàpp ni xeex bi jëriñ dafa war a nekk diggante mm-hmm. julli yi ak lobby pharmaçonique yi nga xam te ne ñoo ngi instauré seen bopp ci dëkk bi dina dugal ci ndóol goo xamante ne mu ngi ni yóbbee rek ki gëm mm-hmm. xam nga ndool gi jullit yi tolloon na fa ba yonent bi ni rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasanatan wa qina azaban naar xam nga ni revendique yi ngay dégg yëpp polémique yi ngay dégg yëpp ndóol a koy yóbbee nit. ndóol ñàkk. ñàkk day yóbbee nit lu bëri. Mhm. te Cheikh dimbali ci garmbaas nu ci ngëm yàlla goo xamante ni maanaam mooy ñu joxe suñu bopp te buñ ci wut njukkal. wallaay dëgg la. Mhm. Mhm. loolu yàlla ni hal adullukum ala tijaara tunjikum min azabin alamin alimin tuminuna billahi bu ngeen bëggee àdduna dañ ci seen xol ba dara du leen metti bu ngeen ndóolee sante ko yàlla bu ngeen amee sante ko yàlla wa tujaahiduuna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum joxe leen seen alal yi joxe seen njaboot yi bëri ana kuy défendre fi toll nii naan Sénégal lay défendre défendre lu Sénégal boppam lay défendre xam nga boo taxawee nga ni kat wax dëgg yàlla mhm. sunu doom yi jàngi ji wunu wala sunu doom yaa ngi feebar te duñ faju dafa fekk ne maanaam xalaatoo sa doom képp wallaay dëgg la yàlla teel wax ni wa tujaahiduuna fi sabilillah bu ngeen dee jaayante ci yàlla mu ni bi amwalikum mhm. ci seen alal wa anfusikum ak seen njaboot Cheikh Ibra képp a ko def joxe na alalam joxe na njabootam looloo waral ku sant Mbàkke moom ku sant Fall ba yomal xiyaamatil akbar Allahu joxe sa bopp joxe sa alal gars yi dañuy joxe seen alal te duñ joxe seen bopp mhm. ñenn ñu joxewul seen bopp seen làmmiñ képp lañ joxe toog ci télé yi rek di wax Baay Faal yi lii Baay Faal yi duñu julli Baay Faal yi duñu woor mais ñii julli kan la ñuy jullil mhm. ñii woor kan la ñuy wooral mhm. suñu borom su fekkee ni suñu mbokk yi nekk ci dëkk bi la mhm. xam ne ñoo ci gën a aay fi mu toll ni ñoo ngi ci chaîne plateforme de télévision yëpp di wax ni Baye Fall yi nan dem julli ji mhm. imaam Kalabaani mhm. Alkalabaani bokk na ci imaam yi gën a mag ci Makka ca Makkatal Mukarrama bokk na ci jàkk yi gën a mag ci Madina mu ciy jiite nee na moom dafa yéex a xam nan nanuy carte ak bolot li mu gën a regretté ci àdduna mooy lan moo tax mu yéex a découvrir bolot moom imaam bi moom imaam est que loolu jarul woon ñu teg wax ko waaw duggal ci internet bi diggante Madina ak Jidda. Mhm. defar nañ fay casino. Mhm. daganal fa yoo xamante ni l'islam mos koo bëgg rawatina ak ci dëkk bu tedd boobee nga xamante ni maanaam loo ca dox daj yonent bi alayhi salaatu wasalaam. wallaahi. Mhm. Mm. yàggul dara tëgg fa concert. waaw. Maria mook moo ko joué. ñu fekk ay millions tuddee ko concert xalaal. concert xalaal mooy. waaw mooy concert bu dagan bu dagan. te bu dee fii la bu gannaaw subaa sax ñu ne Wally Seck mii di way ab américain boo xamante ni waxul ashadu an la ilaha illa allah te bi dafa ni képp koo xamante ni wax na ashadu an la ilaha illa allah wa ashadu anna muhammad rasulullah wax benn yoon la ilaha illa allah ci dundam kenn war koo déclarer guerre kon guerre bi est-ce que entre nous la du ñun Baye Fall génnul l'islam murit génnul l'islam wala danoo jàpp ni kat yoonu murit ak Baye ga nekk ca biir bokk na ci islam Cheikh Ibra pionnier l'islam la boo xam ne ku ko mabal mabal lu rëy ci diine te kenn mën a su koy màbbal léegi ma jàpp ni danoo war a déclarer guerre ñooña mhm. ñooña dem ba fële nga xamante ni sangu-sangu yi fële tëdd mhm. moo xam ngay tijaan moo xam ngay xaadir moo xam ngay laayen koo mën a jokku buntam ci yonent bi la mhm. ni ko sëñ Tuubaa waxee woon sawa un intamaa ila tijaani aw intamaa li ahmad jilaani aw li siwaahuma min al aqtaabi iskuluhum qad ala sawaabi léegi ña daganal ñooña loola lan war ki barki démb am na Mhm. américain bu góor. boo xamante ni ab arab moo ko takk mën naa laa jox nataal mhm. lu gën a ban loola du nu jóg ñu xeex loola. Mhm. ndax ñooñee benn yitte la ñu yam am mooy na diine lislaam ma bax te fi mu toll nii dëxëñ na nu màkk ba dugal ko seen foo yooyu. te naar yi danoo am alal nag tabbi ci mhm. foofu jafewu leen déedéet léegi ñun ñu sonn ñi xam ne desewul lu dul ndigal te moo gën a riche alal mhm. lanu bëgg ñu bàyyi jëfe ndigal mhm. te bu ñu bàyyi jëfe ndigal lu ne ñoo ngi tabbi ci alkande nañ ci yàlla musal donc kon ñun noonu conscientiser te xam ne ñoom fi mu ñuy dëgg fi ñuy woo dëgg euh, fi bi muy kàddu yu ama am solo cheikh Fallou jàppandal saa su rek bu ñu toogee ak moom euh, jotaay la boo xamante ni mbégte la ñu euh, a a waaye cheikh bi dafa am nag li nga wax sànq rek démb ak tey mu am benn polémique boo xamante ne daf fi juddu fii ci euh, Sénégal waaye aussi ak euh, ci tarixa murit ci ñaari kilifa du ñëw sax ci polémique boobu noonu mhm. ndax euh, nit ñi wax nañ ci ba jàmm amaat ci mais dama bëgg xam tuuti ndax guerre bi nga xamante ni tey jamono ji ci marabu yi la mhm. wala ci tarixee la wala l'islam ak lobby la ma war a xeex ngir jëlee fi lu bon parce que bu ñu xoolee kilifa mhm. bu génnee wax rek vite fait dañuy jël ay kàddam diaboliser ko ngir yàqante bi nga xamante ne moo nekk suñu biir. waa xam nga lu ko lu ko waral mooy li ma la wax dafa am ñu rax ci biir. Mhm. tuddee seen bopp murit te sol bàyyi laat taxulaa doonub murit. Mhm. am ñu ci biir. Mhm. tuddee seen bopp ay bayfal te solum njaxas takkum njañ taxulaa doonab loola. am ñu rax ci biir di wooye seen bopp ay jullit. guddal guddal mag ak gàttal seenu cukkal te yooyu du jullit. léeg-léeg nit woote woo Baay Faal nga romb ko am gàcce de. dama la ciy wax wax joo xam te ni sëñ Cheikh Mbawar da ko wax. Mhm. nee na peñe guro yëpp am sànkar. Mhm. amul dëkk ba amul hôpital te heure bu ñu yeewoon ñoo ngi xeex jàngoro yi ngir bëgg mu. wallaahi. léegi bu ñu xeexee jàngoro yi ba jàngoro yi amatu fi est-ce que docteur dana am. docteur yi ñooy sëriñ si. dëgg la. Mm. mooy li ma la junj léegi danoo diaboliser am ci lu nu dugal lu nu comprendrewul mm-hmm. te fekk na ñoo ngi nasaxal sunu ngëm. ngëm ngir ñu bañ a jëfeeti ndigali yàlla yi. Mm-hmm. te sëriñ bi loolu lañu woo ngir ñu jébbale suñu bopp mm-hmm. ittaqullaha wa btaqu ilayhil wasila alxuraan moo nu ko digal mm-hmm. mais ñoom ñoo ngi nii woo ci ñu ñàkk kilifa te bu nu ñàkkee kilifa ñee yilif nu te ñee bu nu yilifee ñett yi alxuraan waxoon inna mm. nafsa la amaaratun bi suu nafsun mutma inna ak nafsun lawaam mm-hmm. kenn ku ci ne di foo ci féete ñun nag suñu bakkan yi suñ tubaa lañ koy jox ba yowmal xiyaam ci ngoon jéemunu xool négatif mu mën a doon ci ngay tudd suñ tubaa maa ngi tudd Cheikh Fall doon ab njiit loolu digal loolu la ñuy def. Mm-hmm. ñoom loolu gën a gëm ko keneen ku woote woo leneen loo mën a woote. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi nag ba tax na. Euh, du ma du ma gis sax ni maanaam coow lu amoon la.